daaw dañ fi ñëwoon dox nemmeeku euh, dox boobu nag biñ fi ñëwee dañoo dajale nag ay baykat ñoo ñu seen bébét ndax jaaxle woon nañ a ah, bi mu loolu amee ñu dellu suñu biir ñu jël xaalis bu takku lu toll si milliard ak lu topp dugal ko si biir dëkk bi euh, xaalis boobu may na baykat yi nga xamante ni au niveau de la zone de Potou dañuy def ñaari campagne ndax bi jëndé jëndee seen produit yoy da leen permettre ñu mëna lancer rapidement ci seen benen campagne bàyyiwuñ la ndax bi lancer woo si beneen campagne bi ñëwaat nañ ci fond Covid yi daal di jëndaat li nga xamni mom lañu bay fexé ba nga xamanteni askan wi néew doole nek biir Sénégal ak fo mënti nek ñu fexé ba nga xamanteni ni di nga mëna jot ci soble bobu ak ci pomme bobu donc xam nga dañ ko defoon mu neex ñu dolli tollanti ñu ne nak duñ yam fofu lolo waral. ñu lëkkaloo ren ak Bay Seddo ñëwaat fii si biir waxtaan wi aussi déglu nañ xale yi déglu nañ jigéen ñi déglu nañ seen mbébét xamal nañ ñu ni soxla nañu matériel lu tolloog forage ak solaire ndax pompe yi sonal na leen gasoil bi sonal na leen ginnaaw loolu nag ñun suñu équipe dinañ dellusiwaat mais ñu ngi ñaan xale yi ndaw yi ak jigéen ñi ñu ngi leen di ñaax ne leen taxaw si seen soxla moom lañ fas yéene di leen ñaax nañu jóg ñoom ñëpp bindu ci si plateforme yi bu ko defee ñu xam seen bëgg-bëgg ñu xayma ko ñu mën leen a jàppale ni ma xamante ni moom la ko kilifa gi bëggee muy son excellence le président Macky Sall nga xamante ni lépp lu ko ñor rek mooy xëyum xale yi donc ginnaaw loolu la bëgg te loolu moo ñu fi indi donc ñu ngi ñaan xale yi nañ jóg dem bindu ji bu ko defee yàlla ñu mën leen a jàppale ba nga xamante ni dinañ mën a am financement yi nga xamante ni nii dina tollook seen bëgg-bëgg bu ko defee ñu mën a sécuriser seen